أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu Hud te ñuy jël aaya 6 benn aaya li tax tey ñu tënk ko ci benn aaya boobu mooy aaya bi importance bi mu am ak dëppoo bi mu dëppoo waxtu wi nu toll ak ci sunu temps benn aaya bi ñu jël ci benn njàngalin bu ñu suñu borom subhaanahu wa taala bëgg xamal pour mu nekk pas-pas ci ñun mooy lan mooy moom borom bi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom moo chargé wu ci boppam ne lépp luy dukkat ci kaw suuf moo xam nit la moo xam jinne la moo xam njanaaw la moo xam day raam moo xam day watatu moo xam day féey moo xam day dox moom sunu boroom subhaanahu wa taala moo chargé wu ne moom moo yor dund loolu moo koy dundal ak loolu nag fu mu mën a nekk moo xam ci biir suuf la nekk moo xam ci biir géej la nekk moo xam ci xur la nekk moo xam ci àll la nekk moo xam ci montagne la nekk ak fu mu mën a ne sunu boroom subhaanahu wa taala moo warlu ci boppam ne moom mooy dundal loolu maadaama dafa bokk ci daaba yi mu nekk pas-pas boo xam ne bu ko doomu aadama yi gëmoon kon tey du jar suñu doomi réew di jël ay gaal di rey seen bopp ci géej gi walla dugg ci àll bi ba dee te ñooñu tey di jël gaal yi di dem ci àll yi di dugg ci géej géej feneen ak feneen ñoo ñëpp àdduna rek la àdduna kese koo ci wax lu tax nga koy def lu mu lay wax dama bëgg a tekki tekki ci loxo yàlla la nekk ak sabablu est-ce que tekki dañ koy forcer est-ce que am am da ngay forcer ne tey damay am rek mbaa ma dee du noonu li ko waral nag mooy pas-pas yi ñoo yàqu nit ñi amatuñu référence xamatuñu lu ñu war a def xamuñu lu ñu war a def ñun ñëpp ñu ëpp ci ñun loolu xale yi di wax ne ma riirandoo dañuy riir rek di dem ndeysaan pour nga yëg ne Sénégal peuple ma riirandoo lañ Senghor bi mu fi nekkee ci jamonoom dafa am benn année muy def campagne électorale mook ña mu bokkaloon jamono kenn ci xaw ma ay opposant yu mu doon defal campagne ci biir campagne bi Senghor am na fu mu dem ci benn dëkk ci biir Sénégal fu mu doon wax nit ñi di yuuxu rek muy wax nit ñi di yuuxu naan woy Senghor xam nga campagne noonu la boo waxee pare gars yi dañuy yuuxu am benn garde corps am ñëw ci noppam daal di koy dee ne ko assassiné nañu amical Cabral moo nekkoon Guinée Guinée mu daan ne teg mu ne wax nañ ma léegi dañu assassiné sama mbokk mi amical Cabral rek gars yi ne woy Senghor la moo tax ñu yuuxu foofu ne woy Senghor parce que foule bi lañ tàmm ñu bëree bëri xamuñu lu xaw ndeysaan benn xiyaamul layli ci benn jàkka ay nit ñu dem di xiyaamul layli ji bi ay jigéen yéen yéen xiyaamul layli bi dafay fees jàkka ji imaam bi buy tari day neex ah ci bu heure jooy yi jotee léegi ñëw nañ ñi ngi naafila ñi ngi naafila ñi ngi naafila ba ñu commencé def safa witre imam bi ñaan rek kenn ki mu ngi nelaw benn benn xarit daal di koy yë- ni ko jukul jukul commencé nañ jooy mu jóg rek ne fekk moom da doon nelaw kàbbarul sax dañ ko de kooku da ko de dóor rek ne jooy yi commencé rek mu ne léegi loolu ci lan la ba mooy sénégalais chaque jour dañuy dund loo xam ne gëmuñu ko dañuy wax loo xam ne du pas-pas ci ñun gëmuñu ko moo tax duñ yegg fee doo gis mukk ci réew mi ñu song dara daal di koy daaneel mukk ci àdduna c'est parce que du dëgg même dund gi dañuy takkale au lieu ñu jàng dëgg dëgg dëgg dëgg ba nekk ay borom xam-xam non au lieu ñu liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg au lieu ñu def métier bi ba mokk non da ngay ñëw dugg ci métier bi ñaari weer ñeenti weer nga ni mën nga dem beru voilà commencé yàqal yi fu doomu aadama yi di yàq ma jox leen benn misaal rek ci lii ñu yor appareil yi ñu yor nu mu tudd ah téléphone am na ay réparateur ci Sénégal wala amuñ ah fu ñu ko jànge dañ ko jàng ci école formation dañ ko jàng ci ah di yàq di yàq di yàq ba xoola loolu xoola loolu nga xëy nekk spécialiste ci defarkatu portable te yow jàngoo ko fenn loolu rek doy na misaal balaa ngay defar day fekk suñu benn waay fan yi du xëy day ñëw rek suñu mbaar mairie koñ bi yëpp indi seeni ventilateur muy defar ñu branché ko suñu courant kër semaine bee ma ñëw gis ko muy defar ma ne ko yow yow kañ nga nekk mu ne xoolal sama sama ventilateur moo yàqu woon ma dem ci waa ji mu koy defar ma toog di xool ma koy xool rek ma koy xool rek ma koy xool rek ma koy xool ba mu bare ma ne ah jeex na ma ñëw commencé defar man sax defaral na ma benn xoolal ñun ñëpp noonu la ñuy def au lieu que ñu jàng mbir mi ba mokk rumbux ak lu mu mun a doon non dañ koy taf tafee taf tafee même bu dee sax classe nga gis ñuy taf tafee classe yi yàkkamti fuñ jëm lan la ñuy njëkkante moo tax xam-xam bi pour mu mokk da ngay gis ñu ne waa ji benn doctorat en nangam dara la mënut waa ji jàngul fii di def pratique moo ko moo ko moom ay diplôme dong la ci am soo ko jëlee nag moom kee lay dem jëli naan nga non booy seega ñun kii bi lañ jàng quoi ah théorie bi lañ jàng jànguñu pratique bi gis nga gis nga gis nga li ñuy def kon loolu yëpp dafa bokk ci ñàkk pas-pas bu wér loolu moo tax suñu ñàkk pas-pas bu wér moo tax suñu dund ñu assuré ko suñu bopp mu nekk suñu loxo kon benn aaya boobu mbokk yi doomu ndey yi moom la ñuy jël tey ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya bi insha allah fal yatafaddal mashkuran majura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين barakallahu fiik jazakumullahu xeyran mbokk jullit yi sunu boroom subhaanahu wa taala wax na ci téeréem bu màgg bi fi ayaatihi fi muhkami ayaati mu ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin suratu hud aya numéro 6 borom bi ne wa ma min dabba amul lenn ci kaw suuf loo xam ne moom mooy daaba daaba mooy luy dukkat mooy loo am ñaari tànk di dox daaba loolu mooy daaba kon ñun ñu lu ñu ñun ay lan lañ kon ay daaba lañ kon ñun ay daaba lañ waaye ay daaba yu sil yu siliñ ndax yàlla moo ñu teral wala qad karam naa bani adam wa xamalnaahum fi lbarri walbahr aaya ba sax ba mu koon dafa ne wa faddalnaahum ala kasirin mu ngoog sunu borom ne wa ma min daabatin fil ard amul lenn luy daaba luy dukkat ci kaw suuf sii ñu ne ah mu ne illa ala allahi rizquha lu dul la man yàlla maa chargé wu maa yor wërsëgam kon jaru rey sa bopp yàlla nee na sa wërsëg ci loxoom la nekk kon loo fi daw bay dee lan moo ko fi jar góor ñi nekk ay góor jigéen tey lu tax ñu def ko ah xaalis jigéen ñi nekk giin lu tax ñu def ko ñiy jaay sàngara lu tax ñii ñii musique lu tax koo fi gis tey mu song liggéey bu bon bu araam di ko def lu tax mu koy def xaalis bëgg wërsëg wu yaatu te doomu aadama wërsëg woowu muy rey boppam yëpp misaal boo amee 30 kër yëpp nekk R plus waxal lu la neex eggalil waaw yëpp ñu def ko caro marbre lal yi nekk or ventilateur yi nekk xaw ma lu nekk climat lu nekk kenn xamul daanaka mu nekk palais wala château 30 ñaata nga ci fanaan ci ñaata ngay fanaan benn château bu nekk am na 50 néeg néeg bu nekk am na 50 lal ñaata lal ngay fanaan ñaata néeg nga ciy tëdd lal yi benn bu nekk double li la épaisseur bi daanaka fees na néeg bi ndax lal bi yëpp ngay fees ah benn place bu ndaw ngay occupé ci lal bi allahu akbar mbaaj mi lu tuuti nga ciy jël mat la bi lu tuuti nga ciy jël nga gis nag doomu aadama ne ne naa ci yor ñaata xoola milliards yi ngeen di dégg Sénégal ñu ne dañ koo sàcc benn waay sàcc ñaata ah wax leen wax leen 94 milliards la ilaha illa allah 6000 milliards benn waay mu nee na milliard soo ko doon xool di ko compter da ngay tàmbalee Dakar di ko tegalee nii nii ba jam ñaajo nii bii 10 000 10 000 yi ba jam ñaajo nii nga koy tegalee nii ba Cees wàññee ko waaw loolu mooy milliard léegi benn waay sàcc ci 6 000 milliards kee sàcc 94 milliards kee sàcc ñaata kee sàcc ñaata kee sàcc ñaata am na koo xam ne moom sàccul moom daa jël yëpp toog ci rek kenn xamul sax lu mu jël ñaata la kooku mooy sàcc bu ngand bi loolu moom kenn xamul lu mu yor dañ ñëpp ñu noppi rek kenn ñëmu ko wax waaw ilaa inan fu ñu jëm dëkk bi nan lay doxee kilo mburu lañ war a dundee benn waay jël ko toog toog def ko ci poosam lekk ko fare naan mburu bu doyul benn waay daal ñëw ci benn may ga génne téeméer na ko may ga jaay ma reer waay may ga bi daal di koy jaay téeméer bi yëpp mun si te dama xoos quoi ebal ma ñaari kaas ak ñaari kilo mburu may ga bi ne ko wooy génnal sama may ga may ga ba yaay yow ñëw nga rek nga sa téeméer ba pare nga ne nañ la lebalaat ñaari kaas ak ñaari kilo may ga bi yuuxu ñun tey jii foofu lañ toll te sunu borom moo ne sunu dund moom moo ko assuré te danañ gis léegi sunu borom subhanahu wa taala ni mu ñu organiser les sunu dund buñ ci jaaroon borom bi yemul ci loolu mu ne laqad da allahu azza wa jal ibadahu yàlla woon a jaam ñi ila tadabburil quran pour ñuy settantal alquran maa saf téere bi dañ ñu ko jox yàlla mu ne afala yatadabbaruna alquran lu tax du ngeen ko seetlu lu tax du ngeen ni ngeen di sonnee ci ni ngeen di liire journaux yi am na ci ñun fii ñoo xam ne journaux yi ñuy jaay Sénégal ñaata la minimum minimum am na ci ñoo xam ne ci ñun dinañ liir dinañ liir trois dinañ liir L'Obs liir Tribune liir liir liir liir minimum ñooñu dinañ liir loolu minimum mu ngi seen loolu mu ngi seen bureau quoi am na ñoo xam ne nag dañ koy tegale ba mu tolloog ñoom waaw te loolu lu tax doo liir alxuraan te loolu chaque jour la rek suba bu nekk suba bu nekk di nga ko liir suba bu nekk di nga liir loolu alxuraan nag hmm? waaw sunu borom daf ñu ne nañ xool alquran nañ ko def tadabbur mu ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubarakun li yatadabbaru ayatihi wa li yatazakkaru ulul albaab wa li yatazakkara ulul albaab borom bi ne téere la boo xam ne maa ko wàcce ci yéen muy téere bu am barke mubaarak kuy ut barke téere baa ngi fi mu ne pour ngeen settantal aaya yi waaye ngeen jàng ci borom xel yi ulul albaab la yàlla di waxal li yatazakkara ulul albaab borom xel yi war a xool téere bi lan la mais maa téere bi ñu ko def téere barkeelu ma barkeelu ci waay ak sa ak duñ sa kanam ñeneen ñi moom téere bi ñu ko def téere ku dee ku dee groupe kaamil GIE ku dee rek ñu wala téléphone am nañ fi benn kaamil ñaata la nga ne ah waa xam nga kaamil bi moom kenn mënu koo waxaale yàlla dafa ne wala tastaru bi ayaati sama nang bu leen jënde aaya yi lu tuuti dégg nga fu ñu koy firee waaw kon léegi da ngay xool rek loo xam ne comme yàlla nee na bu leen def lu tuuti la ilaha illa allah mu ne wa fi nafsil waqt ci waxtu woowu yàlla naan lu tax du ngeen seet téere bi ci jamono boobu faqad ankara ala man arada an tadbiril quran ci jamono yooyu yàlla xas na jéppi na ñi dummooy alquran bañ koo xool jamono boobu mu naan lu tax du ngeen xool alquran jamono boobu moom yàlla mi ngi jéppi mi ngi weddi mi ngi bañ ñi nga xam ne dañoo dummooy téere bi mu ne afalam yatadabbarul qawla am jaahum ma lam yati abaahum al awwalin waaw yéen lu tax du ngeen xool wax ji tax du ngeen ko jàngat wala dafa am lu dikkaloon seeni baay te dikkalu leen yéen mu ne wal yow ma insha allah tey ci kàttanu borom bi sunu rendez-vous ak yéen mooy aaya bi muy wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha mu ne nata dabbarha dama bëgg ñu seetlu ko tey wa nasbahu fi bihaari maaniha ñun ñëpp ñu ànd féey ci géejëm ba yegg ci tefes ga waaye duñ ci yem wa natarashafu min rahiqiha almaxtuum ñun ñëpp nañu ànd xeeñ cu aaya bi xet gu neex fleur gi ciy xeeñ ndax ñu màng yiw wi ci nekk sunu borom ne man yàlla tabaraka wa taala ma chargé wu ci kaw suuf seen wërsëg tey su la Macky Sall waxoon maa la yoreel sa salaire fin du mois bu nekk da nga ci jot le premier ah mu signeel la ko ci këyit caché da ngay am confiance wala doo am confiance damay laajte no déggu ma dara de ma ne xaar ma waxaat ko président de la république Macky Sall suñu woowoon kenn ci ñun fii toog mu ne yaa ngi liggéey nga ni déedéet looy def nga ne ko def ma dara mu ne amul problème naa la defal benn chèque boo xam ne chaque fin du mois di nga ko retiré 2 millions la waaw mu woo kenn ci ministère yi boole la ak moom ñu defal la affaire bi nga dem fi ñuy fayee lépp ñu defal la lépp cachet di nga am confiance wala doo am confiance ah non dégguma dara de di nga wóolu wala doo wóolu di nga ko gëm wala doo ko gëm bu tax yàlla mun nañu wa maa min daabatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa gëmuñu ko te kii mbindeef la yàlla mooy borom jaam yi yàlla wax ñun gëmuñu nit wax ñu gëm ko moo tax duñ dem laa ilaha illallah yàlla mu ne moom sunu borom jalla jalaalu yaalamu mustaqarraha man yàlla maa xam nit fu muy sax fu muy yendu fu muy fanaan wa mustawdaaha bu deewee maa xam fu muy dee maa xam fu ñu koy denc ñu ne ah mu ne kullun fii kitaabin mubin gis nga loolu dañ koo enregistré ci téere boo xam ne kase nañ ko jeex na fii kitaabin mubin ci lawhul mahfuz xoolal xoolal wax ji nu mu gravé xoolal assurance bi yàlla mu ne maa ko chargé wu ñett yi sa wërsëg fooy dund fooy dee ci sama loxo la nekk nekkul ci loxo kenn moo tax ndeysaan da ngay gis koo xam ne allahu akbar dafay fippu pour dem Espagne dem ba yegg dee parce que foofu la waroon dee allahu akbar lu yegg wala mu dee ci biir géej gi kooram kenn du ko gis jën ya koy lekk parce que foofu la waroon dee foog mu dem foog yàlla indil ko moyen pour mu dem dee foofu nga gis koo xam ne moom deful dara gorul yàttu dañuy xëy rek envoyé ko billet ne ko yow de da ngay dem mu ne ah ñu ne ah man mi ñu ne waaw yow kay mu ne fiir dem nga gis commencé nag kër gi moo ñoo fi gënoon ndóol dem na jàng na foofu commencé na liggéey tekki na ñëw na daaneel na kër gi rasé na ko ah ñu commencé suqaliku nag nga gis ñu commencé di ngand ngandalu ci koñ bi ku wax ñu tontu fekk démb dañ doon yónnee ci kër yi ne ne mu ñuy reeree ba pare bu amee ne du say ñu kii ndeysaan gis ngeen yàlla wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha suñu borom subhanahu wa taala mu ne wama wal maana wama min xaywanin yadub ala al ard illa ala allahi taala gazaauhu amul benn daaba buy dukkat ci kaw suuf suñu nee daaba nag bul jàpp yow nag la de mbelantaan sax ci daaba yi la bokk yàlla ba muy wax def ne illa umamun amsaalukum illa umamun gis nga weñ yi ñii ak yooyu ñun ak ñoom ñooyam ah bu doon banque la da ngay ran ro- yoo bi ran sa ginnaaw wala mu jiitu la nga topp ci moom illa umamun amsaalukum ñun ak ñoom ñooyam ñoo bokk benn borom ñoo bokk ku leen bind sa mission ngay dox si ñoom seen mission ngay la ñuy dox xëy na amaana yow bi nga réeree sa mission moo tax ñoom munoo xam ñoom lu ñuy def ndax yàlla bindul dara pour hasard mbindeef moo gis ci kaw suuf si am na lu mu fiy def si yaa ko xam wala xamoo waaye borom bi ko sàkk moom xam na kii lu mu fiy def si. ñu bëri tey boo leen waxee yenn yenn rab yi wala yenn njanaaw yi wala yenn gunóor yi li dafa salte di ko di di fekk am na lu mu fiy def yow yaa ko xamut. suñu borom subhanahu wa taala daaba yooyu yëpp nag moom moo leen di dundal mbokk jullit yi ndax mës ngeen gis gaynde buy ger buy grève ndax dañoo yokk ceeb ndax dañoo yokk mburu ah damay laajte mës ngeen gis gaynde buy grève ah gaynde lu muy lekk yàpp bu fanaan wala bu sedd wala bu bees bees toq yàpp ñun fii bu ñu ko bëggee nu ñuy def soo bëggee yàpp fii nooy def bu ñor ak bu ñorut nooy def da ngay dem jëndi doo fi lekk yàpp cinq jours yi tegaloo yu ñu lay may da ngay dem jëndi def sa frigo te boobu nekkatul bu bees ah gaynde nag yenn saa yi nga gis gaynde bu am cinquante ans ci àll bi te saa yu xëyee dina lekk yàpp bu bees tàq dina ko añee wala mu reer ko wala mu ndékki ko ah te yàpp lay lekk du lekk ñax seen woykat boobu wax na ko mu ne gaynde buggul mbuum yàpp lay dundee te musul grève gaynde yi musuñu grève ne ñun vraiment léegi yeneen rabu àll yi dañuy daw foog léegi yow yàlla nga defal ñu allahu akbar segg yi naka noonu yàpp la ñuy lekk ah wax leen yëpp yi lekk yàpp te yëpp am na ci yoo xam ne du ñu lekk lu fanaan bes tàq la ñuy lekk bu ñu rombee lu médd sax dañuy dañuy dañuy bëgg a wàccu te ñoom yàllaa ngi leen di assuré ñuy lekk guddi ak bëccëg 24 heures sur 24 du ñu sonn yow nag xam nga lu tax rabu àll yi sonn ñu ci problème mu lekk parce que ñoom dañoo bi ñu ne bi ñu déggee wa maa min daabatin fil ard illaa alaa llaahi rizquhaa dañ koo jox yàlla dañ naa yàlla mbir maa ngoog solo ñun nag toog nañ fii benn borom xam-xam dafay tukki mu gis muus bu gumba muy xalaat waa muus mi fan lay jëlee lu mu lekk muus mi fu muy jëlee lu mu lekk muus bu gumba ci àll bii dañ doon gas benn teen ñun Casamance benn teen ñu gas ko 22 mètres benn xeer tëj teen bi ci suuf waa ji ne xeer bi day foo ñu toj ko mu commencé di toj xeer bi ay mbott di génn ci biir xeer bi ay mbott ñu ne ko mais ma ne ko muy génne mbott yi di ko génne ñu koy boole xeer yi di génn ma ne ko attends mu ne bu leen génne mbott yi bàyyi leen fi mbott yi ci biir su ma leen envoyé mbott delloo leen ko ci biir siwo bi mu ñëw ma ne ko pourquoi mu ne ma mbott bi moo may jox oxygène may noyyi ma koy jox gaz carbonique moom li muy nooyi laay jël man li li ma li nooyi moom moom lay jël xoolal gis nga yàlla même ci biir suuf si waaye lan moo kéemtaane mooy mbott yooyu lan la ñuy dundee foofu léeg-léeg ngay gas suuf di gas ba pax bi xóot nga jàmpeel bi génn nga gis sax bu toll nii ah lan la doon lekk foofu bu mu toll noonu ban ndox la doon naan yow ku la fa dugaloon léegi tëj la leneen la ñuy wax wala moom mu ngi foofu muy lekk muy naan geravul de la fin deful yokk nañu mburu xaw ma ne tous pas mon salaire xaw ma mu ngi lekk mu ngi naan allahu akbar parce que moom dafa jox yàlla boppam ñun ñun dañoo dangiral na yàlla toogal kaw asamaan ñu jéng ko quoi way doo rak tak dem dëkk yàlla mu ne tey ngeen sonn de ey doomu aadama boo bëggee boo bëggee ba misaal boobu sax dafa sori jël leen xar yi ku fi am ak xar këram ku fi am xar këram na yëkkati loxoom yéen ñoom am ngeen xar ok xar yi lu ñuy liggéey bu ñuy lekk dañoo am lu ñuy liggéey xar bi day toog di la xool nga romb mu ne la nga ne mu ne mbee mooy sama ndékk bi sama ndékk bi yow sa caaya ju gàtt ak sama ndékk yow looy foo jëm nga ne nga ne eh eh jox leen xar yi nga dem jëndal leen ngooñ allahu akbar jënd ripaas jënd rakkal nga toog nag di jàmb nag ñu lay xulli ba rek waaye gaal da ngaa yëg trop yambar nga rek nga kërti kërti ñëw xar bi lekk ba suur mu ne la xam nga nag dimanche bee sanguwuma yaa ngi nii nag tey damay sangu nga ne eh jëm leen yëg nga yow sang ko ba mu set waaw takk ko ndeysaan mu ne la baleel fi may tëdd ndeysaan nga dem bale ba mu set gis nga xoolal moom dem yaa ngi muy toog xataa bu dee ginaar gi sax noonu nga koy def da nga koy dem jëndali dugub baleel ko parce que ñoom dañoo jox yàlla seen bopp yow nag yow mi ne yow joxoo yàlla sa bopp da ngay toppatoo xar yi toppatoo ginaar gi toppatoo sa bopp lépp yaa koy defal sa bopp ñoom nag ndeysaan gis nga dañ la koy indi ba seen wet ne moo ngi nii ñuy lekk te naa la waay rakkal bi dafa forox de na nga seet beneen yoone ngay dof dof lu nii nga naan xari ni ñu reewee sama xari léegi dañoo reew ah ndeysaan gis nga dañuy lekk ba suur nga dencaat am na ci ñoo xam ne ay saako lañ leen tegal ah parce que dañoo jox yàlla seen bopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na law annakum yéen ñii law annakum tawakkaltum ala allah xaqa tawakkuli bu ngeen joxoon yàlla dëgg-dëgg seen bopp ngeen wàkkurlu ci moom mu ne la razaqakum kama yarzuqu tayr yàlla dina leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc yi picc yi fu ñuy liggéeye ban société la ñuy liggéeye ndax bu weer dee picc yi dañoo am salaire picc yi bu génn tàggam day xiif balaa muy ñëwaat mu lekk ba suur dencal doomam kon mbokk yi alxuraan bi yàlla jox ñu du hasard yàlla di ñu wax ne afala yatadabbaruna alquran aaya yi yàlla wàcce suñu kaw yàlla dafa bëgg ñu am ci confiance wax naa léegi léegi suñ la signalee président de la république bu la signalee ne la salaire nangam nangam am nga confiance yàlla signal ne la la dund gi maa ko assuré wóolu woo ko wóolu woo yàlla ñun wóoluwuñu yàlla da ngay nekk ci oto bi oto bi 7 places la wala 42 places ñun ñi ci oto bi yëpp chauffeur bi lu mu wax la ñuy def toog leen normal ñu toog takk leen seen ceinture ñu ne kërëj kërëj takk waaw bu kenn wax ak chauffeur bi ñëpp noppi bu fi kenn def biir bi ñëpp na pat avion bi noonu la avion boo yéegee rek commencé nañu wax ak yow commandant de bord bi mu ngi wax ak yow waaw takk leen seen ceinture ñu ne naa mu ne fay leen seen portable yi commencé di joxe ay conseil su nangam amee lii la su nangam amee lii la su nangam amee lii la ba ba mu jeexal gars yi tàcc ko ñu daal di départ ñi gëm yàlla moom def seen askar ñi gëmul yàlla ñoom nekk fanaan ak yeneen loo xam ne yéen xam ngeen ko allahu akbar ñun ñooñu ñëpp nag ci oto bi wala bato bi wala avion bi kan la ñu wóolu ah déedéet commandant bi lañ jox suñu bopp ñi ci chauff- ñi ci oto bi chauffeur bi lañu wóolu o chauffeur dee na waaye walang o chauffeur o dee na waaye walang chauffeur waaw wala tukulóor yi di wax ñëpp daal di jox chauffeur bi seen bopp ñi ci bato bi jox capitaine bi ñi ci ñi ci ñi ci avion bi jox capitaine bi seen bopp ñëpp am confiance léegi ñun ñu nekk ci benn bato bu tudd àdduna nekk ci benn ba- bato benn avion bu tudd àdduna nekk ci benn oto bu tudd àdduna yàlla yor ko di ko dawal kenn wóoluwul kenn wóoluwul yàlla lan moo tax wóoluwuñu yàlla moo tax nga gis kii takk fii 5 kii takk fii 5 muy ñaata ñëw fii ñëw fii ñëw fii loolu yëpp lan la ñàkk a wóolu yàlla pourtant oto bi wóolu nga chauffeur bi bato bi wóolu nga ki avion bi wóolu nga wóolu nga nga nekk ak yàlla wóolu woo yàlla ah waaw yàlla yàlla waaye nag waaye nag gis nga yaaye nag lu am yàlla kay jarul waaye nag yàlla ni muy wërsëgalee doomu aadama yi noonu lay wërsëgalee rabu àll yi ñaata rabu àll ñoo am kan ma ko mën a compter fi noonu lay wërsëgalee njanaaw yi lii naaw ñaata la ah noonu lay wërsëgalee loolu ñu naan xasaraat gunóor yi ñaata gunóor moo am ah noonu lay wërsëgalee lii watatu ñaata la ah yooyu yëpp boo leen boolee ñaata la ndax mën nañ def sondage bi ñoo ñëpp yàlla nee na maa leen di dundal xam nga lu tax walillahi xazainu samawati wal ard yàlla moo yor magasin yi li mu yor du jeex yàlla li mu yor du jeex comprendre ngeen loolu wala comprendre leen ko su doon day jeex bu ñu tabaskee ba pare ndax xar dina amaat ah Sénégal li ñu fi lekk yàpp kon mu jeex kon nag day jeex ginaar day jeex ndax ñun lekk rek ah géej gi xoolal li ñuy napp ñaata jën la ñuy lekk par jour dox du jeex parce que yàlla moo ko yor yàlla lim yor du jeex doomu aadama day jeexal yàlla du jeexal loolu moo tax mu ne la jox ma sa bopp ma yore la parce que man du ma jeexal mosuñu tabaski ba ñu dégg ñu ne oo xar jaana tàkk tàkk déwén de kenn du tabaski xar yi bu jeexee fii la jeex de te am na yoo xam ne dañ leen rayul dañu ngi ñu denc wala fii la jeex jeexul ci àdduna bi de jeexul yeneen dëkk yi dara du manqué ci àdduna bi parce que ci loxo yàlla la nekk yow nag li nga yor mën na mën na jeex waaye yàlla moom du jeexal ngelaw li ngeen di nooyi ndax mos ngeen gis ngelaw li daal di fàtt benn jour ñu ne woo ngelaw li daa coupé kan moo mos a dem dëkk bu ngelaw li coupé na yëkkati loxoom amula allahu akbar xoole yàlla ni mu ko bàyyee fi mu nekk ni ñun ñëpp ci biir jumaa ji ñu ngi noyyi kenn xëccoowul ne ma noyyi aal ma ma noyyi yow noyyi nga ba pare sànq ba léegi yaa ngi noyyi rek abal ma te bu doon léegi benn butéel la bu ñuy naan nga gis ko ne waaw mbokk doy na nag ñeneen ñi dañuy naan ah allahu akbar yàlla mu ngi ñu bàyyi ñun ñëpp ñu ciy noyyi kenn xëccoowu ko jant bi naka noonu la ko yàlla bàyyee noonu la yàlla bàyyee guddi gi noonu la yàlla bàyyee lépp doomu aadama am liberté di ci dox yàlla bàyyi ko mu koy def lu ko neex kon doomu aadama boobu lu tax warul wóolu boroomam lu tax warul gëm boroomam ñun li ñu sant rek mooy ay sabab sabab lu yàlla ne subhanahu wa taala ci kaw suuf waaw ñu jege si ñu jege si ñu jege si mu ne ñun li ñu sant rek mooy assaay mooy ñu dox fi sabili xusuli ala wasaili al iish li ñu sant mooy ñu dox jëm ci nan la ñuy dundee li annahu subhanahu wa taala wa in kaana qad takaffala bi arzaaqi xalqihi illa annahu amarahum bil ijtihaadi fi isticmaali kaafati lwasail almashrua yàlla moo ñu assuréel ni ñuy dundee waaye terewul mun nañu nañu ut ay moyens yoo xam ne xam nañu nag ci la ñuy misaal yàlla moom moom suuf si moom moom ndox mi daf laa wax rek su nawet jotee jëlal sa gerte jëlal sa dugub jëlal sa mboq jëlal sa ñebbe nga dem ba ci àll bi nga gas ba mu xóot nga suul ko nga dénk ma ko nga dem sa yoon nga bàyyi ma ak moom lii dong la la sant saaku ñebbe nga am kii am saaku mboq saaku dugub yàlla mu ne bu leen ko lekk indil leen ma ko ba ci àll bi amul gardien gasal ba mu xóot suulal dama sa yoon nga bàyyi ma ak moom maa koy roose maa koy màggal benn nga ma lebaloon ma fay la fi kulli sumbulatin mia wallahu yu daaifu benn gerte nga ji su demee ba nawet bi jeex nga ñëw buddi gerte bi reen bi ñaataa ci nekk benn mboq nga ji woon su demee ba mbool mi mat mboq bi boo ko tojee ñaata grain moo fay nekk ñaata nga joxoon yàlla ah mais loolu la la yàlla sant demal nga def loolu léegi nag yow boo bëggee tëdd sa kaw lool naan yàlla saak baa ngi ci waañ wi ñëwal nga jël ko nga yenu ko nga dem ba ci tool yi nga def ko foofu nag léegi après nag mënul nekk sabablu bi mooy lii sabablu dañ leen a jàngal jàng nga ba pare defal concours defal say diplôme xoolal benn waay barki dem daf ma woo rek ne ma bi ma ñëwee Sénégal ba léegi liggéeyu ma waaye damaa toog benn bis rek ma photocopier sama CV yi sama diplôme yëpp ma loué clando ma commencé dem di déposer mais damaa dugg fenn wàcc duggaat fenn wàcc ma dugg fenn wàcc rek gardien bi daw woo ma ne waa wuy wuy wuy wuy yow lañ doon seet su toogul su duggul woon léegi ci clando di wër fu muy déposer ngeen defe ne dinañ ko woo sabab boobu lan nu sant da ngay sabablu mais tëdd di nelaw Sénégal loolu la ñuy def toog di ataaya non garaawul quoi god dinañ comprendre xam na nu mu demee c'est que town bi moo metti town bi kay day metti parce que sabab lu wuyu toog rek imagine lii jeune ci Sénégal ñaata lañ ci nawet lañ passé léegi nawet àll bi tey boo duggee ndeysaan su may tukki di xool àll bi sama yaram day daw kenn du bay dara àll bi ay ñax da koy kii mun na ma seede àll bi ay ñax da koy sax ba mu fees dal dal dal dal dal nga ñëw fi fekk xale yi ñuy jaay ñetti mbuusu tàndarma ñaari mbuusu gerte benn paquet tàngal mant loolu lépp boo ko boolee 2000 francs la wala 5000 francs minimum minimum xoolal tey bu ñu joxoon ay hectare dagg ay hectare vingt personnes yi léegi ñu jox leen nangam jox leen ji ne leen bismillah ngeen defee ne Sénégal du ñu am lu ñu dunde ah partout nag laa wax ci biir Sénégal am na côté boo xam ne ci Sénégal gerte rek moo fay sax ñooñu ñu jaaye leen loolu am na ci Sénégal côté boo xam ne ay légumes rek am na ci Sénégal côté boo xam ne napp rek am na ci Sénégal côté boo xam ne fir yu kese xoolal li ñu yàlla jox am na côté boo xam ne xorom kese am na foo xam ne ceeb kese waaw imagine loolu kenn exploité te di di nalaw bu ñu waxee ñu ne réew mi naaxul town bi naaxul town bi nu muy neexee ñenn ñi ñu wóolu woon pour ñu jàppale nit ñi pour ñooñu sàcc nañ alalu réew mi ñoo ngi yaataa yimbe nekk nañ ay milliardaire seeni doom ay milliardaire seeni jabar milliardaire seeni géwél milliardaire ba pare nag li garaaw mooy ñu détourner jeunesse bi ndeysaan gëm loo leen ay théâtre ay film football musique nawetaan corona moom baax na fi trop ndax ren moom korona nawetaan amul heure bi kon tafsiruñu grenade eh, lacrymogène yi mu ngi dugg ci biir jumaa ji ñaata équipe bu nawetaan ñoo am Sénégal kan moom ma koy wax muy xamu leen ko géejawaay bi ngeen dëkk ñaata équipe ñoo fi nekk 53 équipe équipe bu nekk bu ñu leen joxoon 10 hectares ne leen dem leen ngeen bay équipe bu nekk ñoo leen 10 hectares dem leen ngeen bay bu nawet bi jeexee nañ am dara wala du ñu am dara nawetaan boo footballee ba jeexal takk nawetaan bi ba mu jeex takk équipe bi jël final bi lu muy am ah équipe bi lu muy am coupe coupe bi or la jamaa la xaalis la coupe bi lan la weñ boo ko tegee ñetti fan yi weñ yi saw ci ba bu ñuul ko xoolal xoolal effort bi nga def ci nawetaan bi trois six mois joxuñu la lu dul loo xam ne coupe benn kaas ñu ne la nga la noonu nga sonnee ci ci ci ci ci coupe bi ci terrain bi 24 heures sur 24 laa la 90 minutes soo ko defoon ci tool 90 minutes soo ko defoon ci tool une semaine une semaine nga def 90 minutes ci tool bu nawet bi jeexee di nga am dara loo am dara mais il faut ñu dellu si xel yi quand même ñu bàyyi nax biñ ñuy nax dañ ñuy nax mais ñun tam dañoo nangu ñu nax ñu ah xoolal làmb ji ñu bëri bàyyi lan koo gis la la combat laa bëgg combat nga lekk a lekk ba kenn xamul yére sax dootu la xëj da nga yow sax sa bopp xam nga ne yow nii nga mel jaar mënatoo sax dox kenn xamul looy nuru def la rabu àll te ñi la ko def ñoom xoolal ñi organiser combat yi ñoom ñi organiser combat yi ci Sénégal xam ngeen leen ah xam ngeen leen wala xamula leen xam ngeen leen dama leen di laaj ngir yàlla kan la ci doomam ñoom di bëre oh dama leen laaj est-ce que seen doom bëggul millions yooyu bëgg nañ ko lu bëgg ñu ko lu tax bëri wuñ pour ñu jox leen ko ndeysaan benn waaye ndeysaan nee na loolu moo ko génnee ci tarixa bi mu nekkoon mu ñëw sunna nee na dañoo yendoo bay ñuy bay di bay di bay ba ngoon jot cinq heures jot depuis suba lekkuñu naanuñu defuñ dara nee na ngoon rek ñu génne benn pliant bu rafet sëriñ bi ñëw toog ñu ne ñoo leen ngeen toog ñoo leen ngeen ñëpp egg su egg leen suuf ñu egg suuf ñu ne tàllal leen loxo yi sëñ bi mu ne tey de yéen ñi fi yendu ñu ne waaw mu ne seen aljana leer na nañ waa ji nee na ma ne ah aljana waaw loolu la wax de mu ne ma xool mbooloo mi gisuma jabaru sëriñ bi te bëgg na aljana ma xool gisuma doomu sëriñ bi bëgg na aljana ma xool gisuma jarbaatu sëriñ bi gisuma te bëgg na aljana gisuma ci benn mbokk sëriñ bi te bëgg nañ aljana ma ne ñii dañ ñuy nax aljana kay buñ ne li aljana la suñ ne woon li aljana la kan mooy toog ma bañ a dem ñëppay dem wala duñ dem bu ne woon fii sax dañ fi tibb xaalis kan mooy toog eh tibaaleel ma dégg nga kooku da ngaa wax yow da ngaa dof ngaa def loolu la koy wax wala waaw aljana lañ fi ut ba pare te ñii duñ dem ñii moom duñ dem ñii rek ñooy dem yéen moom yéenay waa ajana ñii moom du ñoom rek ñooy ah est-ce que loolu du naxaate ñi ñoom duñ def dara toog rek toilette sangu ba set sor ay ganila ñëw toog rek liñ def ajana kay yonent bi mu bëggee ajana sahaaba yi radiyallahu anhum ba ñuy ba ñuy tabax jàkka ñi ndeysaan gaa yi di tabax ñii di gas ñii di birig yonent bi sallallahu alayhi wasallam commencé yenu birig yi di ñëw sahaaba yi ya rasulallah Hamza mu ne bàyyi leen ko yuallimuhum al amal daf leen di jàngal liggéey waaw moom daawul toog mu ànd ak ay sahaaba ñu rey ñu rey benn gàtt kii ne maa koy rey kii ne maa koy fees kii ne maa koy togg yonent bi ne maay fori matt yi ya rasulallah mu ne leen liggéey jaamu yàlla la pourtant mënoon naa toog rek toilette bu ñoree ñu ne ko yaa rasulallah ñor na mu ne dagg leen ñu dagg ngaangal mu ne comme foofu la lii la ñu def fii di moom la ñu def fii waaye moom daf ñu doon jàngal ne liggéey jaamu yàlla la danaan xëy suba sallallahu alayhi wa sallam gàddu ay bagage am dem marché ndugg ñëw danaan xëy suba fóot ndeysaan danaan xëy suba di raxas ay dàllam danaan xëy suba jël puso di ñaw yéreem bu xotteeku danaan xëy suba gis sax jaam bi dëbb mu ñëw jël kuur bi dëbb ba loxo yi fut sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon wan naka lañu war a dundee nañu war a sabab loo danaan toog ba ci yàgg sax mu xiif du am lu mu lekk yenent bi daana toog weer cin du tàkk këram weer cin du tàkk këram ñu laaj Aysa lu ngeen di dunde mu ne ñaar yu ñuul ñaar yu ñuul xam ngeen ñaar yu ñuul yi la la ndox ak tàndarma ñaar yu ñuul yi lañ doon dundee benn bis sax toog na xiif ba mun ta nelaw mu génn ndeysaan boot ay loxo yi di wër mbedd di Medine pourtant bu ne woon yàlla indil ma lekk aljanna yàlla indi ko de ndax yàlla wàcceloon na waa banu israil almanna salwa bu ne woon jibril waxal yàlla foofu ne ma indil foofu ginaar gu ñu saaf ngeen defe ne duñ ko indi wallahi dañ koy indi waaye xoolal dafay jàngal nit ñi mu xiif ba boot loxo yi muy dox ci mbedd Medina mu dajeek Aboubacar ah seex bi lu tax nelawoo yaa rasulallah damaa xiif mu ne man tamit de looloo ma teree nelaw ñu tourné mbedd mi dajeek Umar ponkal mi waaw seex bi lan la damaa xiif waaye yaa rasulallah wala ñett mu ne kaay leen dem kër Abul Ayyub al Ansari ñu waaxu bi mu leen bi ñu fëggee ndànk bañ a déranger abul ayub ubbi bunt bi gis ra- rasulallah ak saxaaba yi mu ne gan gu tedd rek mu jël paaka bi yonent bi gisee mu yor paaka mu ne ko mooy tandikul bu ëmb ak buy nàmpal ay minutes yu ndaw rey nañ fees nañ lakk nañ première li njëkk a ñor ñu indil ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu dagg daal di sex ci gémmiñ gi rek daal di jooy mar ne ko lan la mu ne ko summa la tusalunna yawma izin xéewal gi yàlla defal ñu yawmal xiyaam yàlla dinañu ko laaj ndax dañoo génn xiif ñoo ngi nii yàlla indi ñu yàpp bu ñor dañu ko laaj yawmal xiyaam waaye mu dagg tuuti mu woo doomu abul ayub al ansa mu ne ko dawal nga jox Fatima mu ñam ci yàpp bi weer a ngi nii lekkul yàpp kañ ngeen nga jël lekk yàpp yéen am na ci ñoo xam ne yàpp lañ añee tey ah la dee dee dee dee dee dee dee boo amee téeméer ah lekk yàpp waaw nga wala nga dem forox caaya lekk yàpp wala defal ma foofu sa ñetti laxasuwaay allahu akbar rasul sallallahu alayhi wa sallam da daan toog weer du lekk yàpp te su ko bëggoon am ko am ko daf ñu doon jàngal loolu dafa dem ba kaw asamaan ba fu kenn yeggul ba jibril la àndaloon jibril njëmetul dem ne ko su ma continuer leeru yàlla yi daf may lakk wa ma minna illa lahu maqaamun maalum fii munatuma koo paase mu ne ko nan laay def mu ne ko demal nga yéeg ci essencerie bële mu yóbbu la ci sa borom sallallahu alayhi wa sallam dem ci essencerie bi mu yóbbu ko ci yàlla ba mu yegsee ba jàkkaarloog borom bi mu ne ko attahiyaatu lillah azakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah yàlla ne ko assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu malaaka yi doon seetaan audience bi ne assalaamu alayna wa ala ibadallahi salihin mu del siwaat ci kaw suuf di war mbaam ah mu dellusiwaat ci kaw suuf di war mbaam laa wax foofu mu dem yépp ak ni mu kawee yàlla mu ne ko war a faanaa war a faanaahu makaanan aliya terewul mu dellusiwaat ci kaw suuf di war mbaam fii ngay dégg ñu ne ku sant caam du war mbaam balaa saamu war naas loolu dañ koy way ku sant saar du war mbaam balaa saamu war naas sallallahu alayhi wa sallam war na mbaam te moo gën ci nit ñi maa xalaqal ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin baynal wara law lam yalux fi lfadaai lkawni talatuhu tabqa albariyatu fi zalmai allah ci dëkk bi sax lañ wooyee ne lam yab du misla Moustapha sirran wa bahran wa jahran fil baraya sarmada ku mel ne yonent bi musta am ci kaw suuf loolu yëpp terewul daf ñuy jàngal ne liggéey jaamu yàlla la tëddul di nelaw munoon na koo def tëdd di nelaw gars yi di ko indil muy lekk di naan gis na Ousseynou ak Assane di xëccoo tàndarma yi sarax yi lekk ci mu ñëwal baaraamam dugal ne leen kii dafa salte salte la lii salte doomu aadama yi la ñun duñ lekk lii ñun duñ ko lekk yonent bi daaw lekk sarax lan la daan lekk hadi hadi bokk na ko li Salman xamee ne kii yonent bi la mooy ñett la ko doon seete bokk na ci ndax day lekk sarax wala du lekk sarax ñett la doon référé woo yonent bi ndax moom la wala du moom deuxième test bi tàndarma la yóbbu kon doomu ndey yi mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala téere bii di alquraanu karim yàlla wàccee luñ ko rek pour ñu def ko téere boo xamante ne dañ koy barkeeloo yàlla moo ñu sant moo sant ne moom moo assuré suñu dund waaye daf ñu wax ñu sabablu ngir ñu soot lu ñuy jëriñ gis nga ba ci ba ci ba ci ba ci dëkk suñu bëggee assurer seen sécurité yàlla lan la ñu wax foog ñu préparer force boobu defal ko suñu bopp du ñu toog nii rek yaa fuus tey àdduna bi Amérique Chine yeneen dëkk yi soo gisee ñuy noggatu dëkku lislaam yi c'est parce que dëkku lislaam yi dañoo deful dara toog rek yàccaaral di xoole boo waxee rek ñu la gis nga boo ñu moytul nga toog fanaan jéggal leen ma de man kay damaa juum yàlla waxul ci alquran wa iddu lahum mastataatum ah wa loolu du aaye préparer leen nit ñi force bu yàlla nee force est-ce que ci ngànnaay rek la yem lépp loo xam ne day tax dëkk bi ci xam-xam ci am-am ci ngànnaay lu mu mën a doon nañ ci am doole bu ñu kenn yàpp nañu mën a assurer suñu dund bopp bu ñu dépendre ci kenn est-ce que dëgg-dëgg loolu alxuraan waxu ci walla wax na ci fan lañ ko dundee aaya boobu fan lañ nekk ci suñu dund même bu dee sa kër sax préparer kër gi force jàngalal say doom former leen encadrer leen yar leen say soxna kër gi yëpp kër goo xam ne ñëpp a ndóol kër googu fu ñu jëm histoire rek moo fay bëri kër goo xam ne ñëpp bu ñu toogee dañuy xëy toog buñ tegee bool bi sax ku nekk nii ngay def boo dugalee sa loxo doo dugalaat kër googu histoire dafay bëri bañante dafay bëri nooneel dafay bëri waaye kër goo xam ne amuñu sax temps fu ñu añee fu ñu ndékkee fu ñu reeree du ñu gisee lu dul guddi ba guddi ku xëy ku nekk da ngay xëy yàlla daf ñu wax daf ñu won lu leer ba pare ñun ñu nangu gëlëm na- di di dof doflu waaw koo fi gis mu bëgg sangu ba set kësti mu takk karawaatam dugg ci benn 4x4 wàcc ñu ubbil ko porte mu dugg ñëw toog naan nii rek su paree del salaire am loolu mënut a nekk waaw loolu Yunus di wax oɗo andi seernaɓe mon ɓe juuɗe mumen eɓen ina ɗaaci ina wayno juuɗe mbumri kangani ni oɗo gandi mbumri kangani kam ndin liggota ko ɗum dey liggey nee na am na ci réew mi nit ñoo xam ne seen loxo yi dafa nooy ba mel ne loxo jànq bu dof jànq bu dof lu tax loxoom di nooy du liggéey xoolal tubaab bi tubaab bi lan la tuddee suñu sëriñ si nun di lañ leen tuddee ah maarabu maarabu xam ngeen lan la ah maarabu lan la benn picc la moo gën a tayal ci picc yi foo ko fekk dafa tayal ba benn tànk lay taxaw ne nii di nelaw ne nii nag bég bi gudd léegi nag yow ndeysaan nga xëy ñu naan la grand maarabu nga gis gis tubaab ni mu saay saaye soo demee aan picc baa ngi foofu aan chaque jour ma demee yóbbu xale yi sorti dama koy gis ma leen xoolal kii maarabu la tudd moom lañ tuddee suñu sëriñ si picc bi picc bi du du moom du lekk du lekk lu mu reyal boppam déedéet day bàyyi ba fi dee ba nëpp mu ñëw toog di lekk jën sax bu nëbee lay ñëw toog di lekk moom du def benn effort bañ na ko ba daa tayal benn tànk lay taxawee nii lay def di nelaw nag allahu akbar xam nga ko wute naag gaynde moom day dàq rëbb daw ba jàpp wute naag segg day daw ba jàpp jullit noonu la war a mel da ngay dem ci front ba uti ay toog di nelaw rek sa kaw lal naan mbir yi dina baax dina baax nu muy baaxee ah du baax foofu ci kaw lal bi de da ngay jóg dem sabablu ji yàlla def na nga dem sabablu comme baykat bi nu muy sababloo mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala ci aaya bii annahu takaffala bil arzaqi maxluqaatihi min al uqla wa dawaab wa gayrihim yàlla ñépp la assuré ne moom moo yor seen wërsëg moom mbindeef yépp yi am xel ak yi amul xel yàlla leen di wërsëgal ci place bu nekk te du ñu buuxante du ñu def dara yàlla da leen di jox ñu lekk ba suur yonent yàlla Suleymaan mës na wax yàlla damaa bëgg a dundal àdduna bi weer yàlla mu ne ko Suleymaan mënoo ko mu ne yàlla mën naa ko yàlla mu ne Suleymaan mënoo ko mu ne mën naa ko yàlla mu ne ko bul ko defi weer def nay naa la benn fan dundalal àdduna bi benn fan bul ko defi weer Souleymane xam ngeen dafa àndoon ak jinne yi 4 kilomètres carrés Souleymane togg ko lekk jinne yi xam ngeen cin cin yi jinne yi doon toggee moom ëpp na sunu cin yi waaw ñoom xam nga ñun fii sunu cin lu mu gën a rëy ñaata kilo la ah Sénégal ñoo bëgg lekk moo tax ngandi cin la ñuy defar ngandi cin teg ci 50 nag nga dégg ñu naan dëj bi 50 cin lañ teg rangale ko nag xool dañ koy orne nag orne cin yi nag ñu rang nag lépp dañ koy lekk ba mu jeex tak dara du fa des lekk rek lekk moo ñu tardel da ngay gis ku jaay terrain ngir lekk man kay sama taw bi damaa jaay sama terrain bi xoolal loolu da ngay gis ku dem lebi ngir takk jabar ku dem lebi ngir ngénte ku dem lebi ngir dëj ñaa ñu cotisé dem jënd ngàndu nag te malade bi bi mu feebaree kenn cotisé wul pour faj ko walla ah dañuy bàyyi ba mu dee kii kii xam ne mun na seede lu may wax fii yàggul dara sunu bindu kër nii koo xam ne bi ñu koy wàccee feebar bi ñu koy wàccee tànk yaa ngi direegu ñu garde ko garde ko garde ko ah yéen du ngeen ñëw ah fi mu feebaree baaxut tabaski bii di waaj a ñëw nii mu feebar fi mu feebaree baaxut nañ bàyyi bañ tabaski bi pare ñu bàyyi waa ji tabaski bi jeex ba ñëpp nekk seen olala ba pare ñu doog a ñëw nag ndeysaan yóbbu hôpital mu dee deewagul sax yuuxoo nañ ne dee na bañ jël kees dem foofu di xa- di ñu ne la yii deewul ñu ne ah ñu ne yëgoon ne démb dee nañu ma toog docteur yi ne leen deewagul de ah ñu dem toog ne la ñu dem toog feele ci hôpital bi di xaar minute gu nekk ñoo na xaar leen tuuti rek deewagul ñu yendu ci hôpital bi depuis ngoon depuis suba ba ngoon ñu ne leen léegi dee na ñu jël dugal yóbbu ñëw nag indi baas yi waaw indi nag commencé taal ci ni police ñëw ñu tas leen mbooloo mi ndax ci corona bi la woon ah kooku noonu mënuñu woon dajale loolu lépp fay nañ hôpital pour mu pour ñu jot corps bi. hôpital hôpitalisé nañ ko jëndee ordonnance dëj bi ceeb diwlin yàpp nag jëpp loolu buñ ko ko suppaloon fii bëri na ku fi dee da ngaa tooy rek bëri na sénégalais bu dee da ngaa tooy tooy buñ jëloon ñeent fukki junni yooyu ñu jënd ko nag ñu defar ko ba mu baax wala mbuus ñu lay suppal di ko supp ngay naan ci ñeex mi di lekk ci yàpp yi ak pombiteer bi da ngay jóg voilà dañuy bàyyi ba nga dee fekk am nga sax problème ordonnance ñu doog a indi ngandu nag nag yi ñuy rey ci dëj yi bu ñu ko defaloon ku feebar ki day wér wala d'accord leen ci ah fii nit ñi dañoo sonn rek jeex tàkk tooy dañoo dox dox dox ba sonn wow koŋ cinq jours bu ñu la tagalee di la defal supp ngay naan ci ñex mi ba ñaq wallaay da ngay wér kër xam ngeen li may wax dëgg la waaw léegi duñ ko def dañuy bàyyi ba nga dee ñu daal di ñëw ne bismillah indi affaire bi yow ana nga da nga àllaaxira fële ñoom ñuy noos fii di lekk ba suur indi ay kanet indi ataaya nga dégg ku naan man de sama bopp baa ngi metti naanu gu ma ataaya nga dégg ku ne keneen mu ne kanet yi doyul léegi dañuy otesu wala gisu leen ko dañu dañuy otesu mu ne ku jaamu yàlla perte nga boo jaamu yàlla dañuy noos sa dëj maire yi lay téen ji jigéen ñi sax dañuy otesu tal seen tànk nag léegi naa ah ki ci gën a nekk dir yànke nga gis paa yi di jaale si naan nii ah waaw mu jabare mi jekk nañ de ki ci gën a bandi nag mooy ñëw nga xam ne dafa nopp ñetteel bi day ñëw ne maa rees dëj bi waaw maa rees dëj maa indi nag bi maa indi ceeb bi kër gi bu fi kenn joxe dara maa koy joxe pour bu yeboo ñu jaamu yàlla dañ ñuy nax mbokk yi ma tënkal leen bu gàtt kaay leen ñu jaamu yàlla dañ ñuy nax ku jaamu yàlla perte nga dañuy nii sa dund ngay gis nii soo dee noonu lañ lay def du ñun ñu ngi koy gis ba ñu mun koo nettali ku ci jaamu yàlla boo dee noonu lañ lay def sa jabar yi bu ñu ténjee ba génn ah dañuy continuer noonu keneen moo leen di tàkk sa kër léegi léegi maa ngi ñëw ci wërsëg nu ko doomu aadama di amee wërsëg doomu aadama naka lay amee wërsëg am na ñoo xam ne bala ñuy tekki seen baay dee xam ngeen ne wërsëg ñaar la benn bi da ngay dem nga liggéey ko nga ñax ko yaa ko moom benn bi da ngay xëy rek ñu ne la ba mama yi a dañu leen 2 millions ndaa da ngay dégg benn waaye mu ne noo man bi paa bi góowee quoi bi paa bi góowee 3 millions lañ ma jox keneen deman am naa 5 millions bi paa bi góowee waaye paa bi dafa war a góo quoi ba ñu jaay gàlle bi ndax ñu tekki quoi dégg nga de allahu akbar kon paa boobu bu jaamul woon yàlla lan la fi bàyyi ginnaaw kenn du la fi ñaanal ndax seen ñaan yi ngeen di gis ñi naan dañuy ñaan am ngeen ne lii du ñaan benn góor Mauritanie dafa xëy ndeysaan dafa amoon ay nag dañuy rat bu ñu rattee ba mu fees ñu séddoo ñu jël reer moom ñu tegal ko benn bis mu yeew mu ne ana sama reer ñu ne ko dañ laa fàtte démb ci ko di pa da ngaa teel a tëdd mu ne ah bon may dund ngeen fàtte ma alhamdulilah lii de war na ma ne bu ma dee kon mu dem marché ne kaay leen ñëpp ñëw mu mu saraxee yàpp la sarax ñu ne ko lay def ni mu ne ah damay liggéeyal sama bopp comme da ngeen may fàtte waaw tiyaaba bi moom dama koy envoyé foofu moom kenn du ma fàtte comme yéen da ngeen may fàtte fii ñaata nit ñoo fàtte seen papa am na ci ñun ñuy fii kañ lañ gëj a ñaanal seen papa kañ lañ gëj a ñaanal seen yaay kañ lañ gëj a ñaanal seen mbokk am na ñoo xam ne bi seen papa deewee lañ gëj armeel ba gis naa benn waay boo xam ne papaam dafa dee demu fa demu fa demu fa demu fa ba mu am ay problème yawaram ne ko gis nga yow sa àqu papa moo la dal dama nga baalu ji ko àq demal ci armeel ba mu langaar langaar yi dem yegg xamul fu ñu suul paa bi mu woo benn xaritam téléphone waaw mais man ñoo maa ngi nii ci armeel yi quoi mais armeelu paa bi laa mun ta xam fan la waa ji ne ko non léegi da ngay ñëw nga yendu fi nga bu ñu añee ba pare sama kër ma won la ko parce que man chaque vendredi dinaa fa dem maa koy bale sax nangam naa la ko won mu daal di dem yend ak waa ji ba ngoon ñu ñëw armeel bi réer leen ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp armeel bi réer leen loolu daraa ngi ci loolu wax la mbokk yi nañ leen bàyyi xel suñu bopp nañ leen góorgóorlu ma tënk tënk bu gaaw wërsëg ñu ngi koy amee ci yii may bëgg a wax doomu aadama yàlla tabaaraka wa taala mën na ko ci wërsëgal mu am wërsëg waaye wërsëg aussi dafa am lu koy sàmm pour mu am barke te boobu moo ci ëpp importance mooy wërsëg bi nga am nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala moo la ko may nga góor-góorlu nga sàmm ko ba yàlla dafa tabaaraka wa taala defal la ci mu am barke ndax wërsëg bu amul barke amul njëriñ mbokk yi tomb yii nii sunu borom subhaanahu wa taala wax ñu ko kenn ku nekk ci ñun du ay léeboon ak ay léppoon loo war a bàyyi xel la yàlla wax nañ ci alquran huwa allazi jaala lakum al arda zalulan famsu wa kulu wa ilayhi yàlla wax na inna allaha yarzuqu man yasaa bi gayri tomb bu ci mujj bi mooy wërsëg suñu wërsëg buñ bëggee mu am barke képp koo xam ne yàlla wërsëgal na la nga góorgóorlu ba yàlla may la yenn yi pour nga sàmm ko pour yàlla tabaraka wa taala wàcce ci barke foog nga def mbir yii nii yooyu ba ci jiitu mooy boo bëggee sa wërsëg am barke ragalal yàlla ndax waman yattaqillaa yajal lahu maxraj wa yarzuquhu soo ragalee yàlla jafe-jafe boo am yàlla génne la ci ba pare sa wërsëg bu la yàlla defal yàlla di lay gaaw a may wërsëg yàlla da lay wërsëgal foo ko foogulee woon foo foogewul woon ne yow fii dinga fi am dara sunu borom subhaanahu wa taala def la fay wërsëgal te yow yaakaaroon nga ne fii doo fi am dara dara dara bokk na ci encore sababu wërsëg bu am barke iqaamatu salaa ngay julli yàlla mu ne wamru ahlaka bi salaati wastabir alayha la nasaluka rizqa nahnu narzuquka soo bëggee am wërsëg deel julli bokk na ci soo bëggee am wërsëg bu am barke nga wakkirlu ci yàlla nga jox yàlla sa bopp hadis moo ci ñëw law annakum tawakkaltum ala allah soo bëggee am wërsëg bu am barke deel wax astaghfirullah lu bëri fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana yursilu sama alaykum wa yumdidukum wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum boo bëggee am wërsëg bu am barke da ngay jokk mbokk silatu rahm man sarrahu an yubsata lahu rizqahu aw yunsha'u lahu fi asari falyasil rahimahu ku bëgg yàlla yaatal sa wërsëg ku bëgg yàlla may la lu am barke mun a jokkal mbokk beneen bi mooy ku bëgg sa wërsëg am barke del saraxe an nafaqa del dimbali say ñoo xam ne yaa leen tane soo leen dimbalee ñooñu ñaanal la beneen bi mooy ku bëgg am wërsëg bu am barke soo la yàlla mayee del dem aj wala nga dem umra nga koy toppante loolu yàlla daf ci ba- daf ci am barke beneen bi mooy ku bëgg yàlla wërsëg bi mu la may mu am barke del santal yàlla ci lim la yàlla may yàlla may la ba pare amoo lenn loo ko fay naan kii booy maa ko ñaq sama doole la naan nii ñaata yoon ngeen koy gis ah ñeneen ñi naan nii kenn ki ñëw naan liggéeyu ndeyam la kii kay xam ngeen ne ndeyam lim fi def léegi ana yàlla lim def bu kii ne tànk bi la kii ne bopp bi la kii ne xel mi la kii ne doole ji la kii ne liggéeyu ndey la kii ne liggéey baay la kii ne sëriñ bee ko ñaan léegi ana yàlla lum def nit bu ko yàlla mayee day sant yàlla wa amma bi ni'mati rabbika i'malu ala daawud shukran wa qalilum yàlla may la amoo keneen koy sant nga dem di sant keneen mooy lekk ba suur par exemple au lieu nga ne alhamdulilah nga ne jërëjëf diw loolu est-ce que ngor la est-ce que diw moo indi ceeb bi moo indi diwlin bi moo moom suuf si moo la toggal togg bi benn waay nee na dafa am oto mu nekk ci tàngoor bi muy ñëw Dakar mu romb benn waay mu yóbbaale ma waa ji ne ko dugal mu dugg mu tëj rek mu ne jërëjëf diw na ko wàccal ah mu ne ko diw moomul oto bi wàccal man mii nga war a wax jërëjëf maa la yóbbaale waxul dëgg wax am dëgg dafa am fula moom oto bi yow benn waay ñëw di jël yóbbaale la waxoo ko jërëjëf nga ne mu ne ko wàccal ah mu ne ko diw moomul oto bi mais fii ma gën a yal nañu yàlla yërëm yal nañu yàlla wan wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko kon loolu mooy darsa tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu